mbokk internet yi ñuy topp ci Dakar live people 221 ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jaajëfal euh, tey nag euh, mu nekk rek naqar ak tiis bi nga xamante ni mi ngi daal di am fii nga xamante ni moom moo di golf euh, cité bi nga xamante ni moom moo di cité douane fi la nag la ñuy xam le ni benn batiment moo fii daal di daanu mun ngeen a jàpp ni sax kër gi deuxième étage la waaye nag anam bi nga xamante ni daal kër gi dal di lañu wàcc bi ñu xoolee kër gi état bi nga xamante ni la daal di nekk état bi normalul maanaam daal kër gi demoon lu yàgg waa yàlla suñu borom daal di koy téye euh, lu weesu loolee nag tey jii la daal di rek euh, wàcc ci àllarba bi euh, bi 18 heures jotee la ñu daal di jot xibaar wax ñu rek fii nga xam ne moom moo di cité benn kër moo fi daal di rek màbb ginnaaw nag bi mu màbbee am ay doomi aadama yi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci biir ginnaaw loole nag am na ay xale yu góor yi nga xamante ni am nañ ci ay blessure bi rek sapeur ñëwee dañoo daal di ñëw jël ñi nga xamante ni ñoo ci jot am ay blessure ginnaaw loole nag am keneen ku nga xamante ni moom moo desoon ci biir moom mi desoon ci biir nag mu daal di nekk jigéen ginnaaw bi mu nekkee jigéen nag mu daal di nekk uh, ku nga xamante ni mag la maanaam du xale uh, ndax nag ay atam romb na lool lool fi nga xamante ni uh, fa xale atam di yam lu weesoo loolee nag ginnaaw bi bal bâtiment bi daanoon dix-huit heures boobaak léegi sapeur mi ngi doon def kem kattanam euh, ngir rek mën a génnee kenn ki nga xam ne moom moo desoon si biir euh, mu nekkoon mag mbokki internet yi gannaaw nag euh, bi vingt et une jotee le sapeur pompier soog a mën a am accès si moom ngir mën koo génnee ci sutura waaye nag bi ñu koy génnee danu ko nëbb bu baax a baax ndax nag li ko waral image bi dafa doy waar ndax nag dal bi lépp màpp ci kawam mu daal di nekk nag lu méttee méttee lu nga xam ne bët ko ba tax na yooyu la image du ñu leen ko mën a wan dañu leen koy rek daal di expliquer ginnaaw nag ba sapeur duggee ngir daal di koy génnee ba mu ñëwee fekk fa li nga xam ne moom moo di bakkan li mu def rek moo di rek daal di jël koor boobee nga xam ne moom moo nekkoon ci biir daal bi wàcc ci kawam mu nekk mag nekk jigéen ñàkk bakkanam jamono ji ni ki tey ji ci àllarba bi bi vingt une heure jotee la koor bi di soog génn sapeur pompier nag li ñu jot a wax mooy am na ay blessure nekkul benn bu grave alors mbokk internet yi ba tey ñu leen di fàttali rek mbir mi mi ngi daal di xew fi nga xamante ni moom moo di cité douane benn immeuble deuxième étage moo daal di màbb ci kaw ay doomi aadama yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir ginnaaw nag bi mu màbbee ñu ci bëree bëri sauvé nañ ñu ci bëree bëri daal dinañ leen di euh, jéem a faj muy waa sapeur pompier waaye kenn ki nga xamante ni moom moo nekkoon ci biir mu nekk mag nekk maire am njaboot am ay doom ginnaaw si moom mile wuy ji na boromam ñàkk na bakkanam ginnaaw loole nag sànq kenn mënul woon te kenn ndax koñ bi ñëpp a màbbandoo di yooxu waaye tamit ña desoon ci kër gi ay doomam di yooxu di wax ni fan la ñuy jëlee ci seen yaay xanaa rek di ko ñaanal moom mi dëddu yàlla suñu borom jéggal ko te xaaree ko aljanna waaye njaboot gi mu fi bàyyi yàlla suñu borom euh, may leen xolub muñ euh, lu weesu loolu dañ leen di bàyyi ak image yooyu nga xam ne yéen a ngi koy gis en direct alors li ngeen di gis ni auto sapeur pompier la euh, beneen bi ci ginnaaw itam auto sapeur pompier la bu ànd ak pick-up yéen a ngi gis noonu xam naa bu baaxee dañuy avancer jëm leen wan tuuti rek ci li nga xamante ni moom moo di kër gi waaye duñ leen mën a wan image bi nga xam ne wax naa leen ko sànq muy ki nga xam ne moo ci ñàkk nam ndax anam yi mu nekkee doy na waar. man Cheikh Gueye laa tudd. alors ñu fekk tey cité douane nakar ak tiis daal di fi am ginnaaw dal bi nga xamante ni moom moo wàcc ñu bëggoon a xam rek ndax mbir mi fekk na la waaw fi la ma fekk parce que la femme a dépassé une trentaine minutes dugg këram après ci la événement yi am waaw. Euh, peut vers dix-neuf heures. dix-huit heures quarante cinq ans dix-neuf heures yooyu daal approximativement quoi ci la am waaw yàgg na fii yàgg na fii fii la doon sëy am fii jëkkëram ak i doomam bon ndaw jigéen soxna su baax su yaatu su bëgg xale xale yi dañ ko doon topp ba bëccëg xale yu ndaw yi d'ailleurs sax defe naa ñoom la doon utal weccet pour jox leen ko ñëw jox leen ko neen xaar leen dugg ci biir ci la ko affaire bi dalee noonu Euh, même ñëw di doole dëkk ci koñ bi day togg di leen jox moom daal ku baax dem na euh, baat bi moom benn la fu baax fu baax fu nit di di natt baax rek moom foofu la commencé baax di dem honnêtement waaw. kër gi kër famille la kër gi kër la fi nekk ak euh, sa famille waaw waaw. Bon, comme toutes les maisons qui sont au bord de la mer en général avec l'érosion maritime côtière la day day day day am problème euh, humidité beeg yooyu mais nag euh, xam nga rek en tant que dëkk bi ni mu demee aussi sa kër mën na nekk ci état mais doo am possibilité pour mën ko gaaw a def na nga ko war a defee da koy waajal e defe naa sax borom kër gi ci loolu mu ngi ci woon ak seet nu mu ciy génne mais daal comme ndogal ñëw na moom. ndogal buy ñëw moom day bett ñëpp daal loolu daal euh, moom ah loolu laa je ne sais pas honnêtement parce que demuma fa man je peux pas dire des trucs yoo xam ne euh, fi ma toog daal la dégg le bruit moom sa fait un bruit mouse amala ma xam ne ma daw dem j'ai vu ci kaw ne leer na ma xam ne daal bi moo wàcc loolu laa si am. non man juste à l'entrée ah dama ñëw taxaw nii rek gis affaire bi comme à ciel ouvert xam nga ma xam ne dal bi wàcc na bon cœur ne me permet sama vraiment ni ma meloon ak moom parce que c'était une femme qui m'était très attachée xam la am na noo meloon ak moom loo xam ne mënatu ma woon taxaw foofu sax di jéem a xool yoon dama replier waat rek ñëw toog fii di tudd yàlla. waaw alors euh, euh, les pompiers on les a appelés ils sont venus euh, peut-être une heure de temps après mais ça a pris du temps pour seen logistique bi ñëw parce que ñëw nañ xamuñu lu ñuy def ñu nekk fi du yàgg werante oto dem oto dikk yàgg na daal parce que entre dix neuf heures et vingt une ñu door ko génne ça a pris du temps quand même ça pris du temps Euh, alors lan ngay wax tey parce que dañuy wax dafa war di wër ci dëkk bi di xool yenn kër yi nga xam ne dafa màgget ñu daaneel ko. mais à juste raison à juste raison gouverner c'est prévoir am na ci yoo xam ne il est bon que les gens di jóg di dem xamala euh, xool li nga xam ne jaarul yoon ñu jëlee ko fa parce que duñ toog toujours di constater les dégâts waaw war nañu mën a éviter yooyu du lépp nag la ñuy éviter yàlla rek a xam. mais nag des fois am na ci yoo xam ne li ñu wax rek euh, prévenir vaut mieux que guérir waaw parce que y a des ak situation yoo xam ne nit ñi war nañ ci jóg mais duñu wàcc ba problème am ñu dem ñëw bon fekk y a mort d'homme le vin est tiré faut le boire mais c'est difficile waaw waaw euh, ah, gaaw ñëw nañ bon dans ci ci laps de temps quoi peut-être ci kiiwu une heure de temps mais euh, pour mettre en place le système pour évacuer affaire yi loolu ça a un peu traîné ah je ne sais pas nag à quoi c'est dû mais en en vérité c'est ça. alors mën nañoo xam ndax moom kese moo nekkoon ci kër gi wala dafa am ñeneen ñu. ah alors je pense qu'il était avec son garçon mais le garçon est parvenu à sortir waaw. Merci beaucoup. Euh, je vous en prie. Tout le plaisir est pour moi.